Assalamu alaikum, beaucoup internautes du Wassari TV. Bienvenue dans votre rubrique K sur le plat. Et spécial Pape Diouf, le leader de la génération consciente. Oui, bien sûr. yéen ñëpp ngi nous poser la question Pape Diouf fa Pape Diouf est-ce que dafa fay. wala dafa am lu préparer. préparé ndekete yow boobu mu ngi waajal loo faire ne dina def bànneex yéen ñëpp seen xol. clip exceptionnel. avant ça l'originalité des images me dépasse. Waouh même pas deux jours dépasse 9, moutons, le le 150 150 vues 10 000 j'aime c'est trop j'adore cette clip c'est pas la peine de demander pas du fait clip bi 30 ans je vous dis da ngeen un clip bi xam ban période de def a période de vacances ça veut dire que les, les moom rose blanc rouge bleu ça veut dire que couleur été yëpp dafa mel ni arc-en-ciel mu taw ba rek nga di gis arc-en-ciel bi. clip bi yëpp a rafet. piscine yi xale yu si biir xale yu xees xale yu ñuul xale sax yu am teint marron ñëpp ñoo ngi si biir. mi Diouf vraiment chapeau à toi encore une fois félicitations. oui pap Diouf est toujours amoureux. il fallait un clip pour vous le montrer les gars ñoom sax loolu la ñu wax waaye boo paree foofu dama ñëw si sans lexical maanaam texte bi. am na jazz am feeling mbëggeel bu intense lu sexy no ça veut dire que dalay wane ni maanaam bu doon def dissertation dafa jël benn contexte historique daal di ko teg fu mu gisee xale bi am coup de foudre xale bi xaw na ko rey bu mu waree sax daal di jooy ça veut dire que nee na champion daan na dëgg-dëgg mu pare daal di def benn conclusion bu exceptionnelle tey baas xale bi xale bi sol jiin tey Nous nous doxee nous nous nous nous koy j'adore vraiment cette clip encore une fois toujours constant en tout cas c'est à vous maintenant de ben xam vous note parce que man 20 sur 10 et je vous dis hein, 20 sur 10 am ne raseeg yépp loo xam ne maanaam dafa mel ni euh, dafa def benn point boo xam ne da koy defal li di ndaw si en tout cas chapeau à toi Pape Diouf je suis vraiment fier de toi li na naan constant dëgg à chaque fois boo génnee def doom mais damay poser la question xam ngeen si été la nekk à chaque fois boo tuddee été timide xam ngeen ko dañ wax clip boo xam ne peut-être dañ si ànd ak keneen gis neen Viviane ak kii di Wally Ballago pourquoi pas Titi ak Pape Diouf bu fekkee d'accord ngeen def leen j'aime en plus ngeen commenté ñu xam ne yéen d'accord ngeen merci beaucoup ces internautes de Wassare TV lii la indi leen tey seen biir rubrique cas sur le plat comme d'habitude cas yépp la ñuy jël dafa sur le plat ngeen tànn si bu leen neex n'oubliez pas de vous abonner sur Wassare Célébrité Wassare TV ciao n'oubliez pas de mâcher beaucoup de bananes Mamadou Rassoul